suturaam su rëy soosu nabi doon ñaan ba buñ ne xeet sàngam bu ma yaati kullu unaasin bi imam yi aadama mu ne la béyka yaa mawla mu ne ko teewal ak ñu nga nekk loo expliqué jàll chiche mu expliqué jàll noox ba trois cent treize yi dañ man man la ñuy mujjee oon yàlla defal na sama xeet wi ñetti yëf ngir bëgg leen premièrement ñoo mujjee ñëw ci xeet wi deuxièmement ñoo ci gën a ñàkk aleel troisièmement ñoo ci gën a gàtt fan xam nga lu tax ñu mujjee ñëw xamu la ko de day bañ mu ñu tëdd ci suuf lu yàgg ñett tëddoon ci wam aadama ba tey yàgg ñun bu ñu tëddee rek tuuti la ñu tëgg ñu fëgg ne jóg leen teele rek looloo tax ñu mujje ñëw xam nga tax bari wu dañuy bañ yàgg ci bis ku la ëppale gën na faa yàgg jamono bu avion bi agsi ku la ëpp ay ay ay colis mu jëla mu jëla benn saak bi bu wàccee rek day fab saagam dem dina sangu sax nga toog di xaar di yonent yàlla Suleymaan yonent yi dinañ ko jiitoo àjjana ñeent fukki nawet ngir nguur gi moomoon rek alal ji yor waaw dinañ ko jiitoo àjjana ñeent fukki an at ñeent fukki nawet yonent yàlla Suleymaan nabi dafa toog saaba bi mu yàgg ker gaa ngi neex mu ne génne leen dem ci naaj wu tàng ñu génn mu ne sumi leen seen i mbaxat ñu sumi mu ne sumi leen daal yi taxaw leen foofu kenn ku ci ne la ma wax li mu am ci alal dooru ñëw ci kër ñu naan am naa ñaari giléem mais nam xar am naa ñetti ginaar juróom-benni mbubb benn waay na si ñoom ne ko man ne mbubu mii rek la am mu ne ko kaay mbubu mii dong la am kii rek yonent bi ne ko kaay gaaw mu ñëw mu ne leen gis ngeen ni mu leen jëkk a jóge ci naaj wi na leen di jëkk kitee bu bis pince ku la ëpp bagage kenn fay moo tax bari la wunu nun sunu fan bu gàtt la ban Israël am na ci yonent boo xam ne yàlla nee na seen xeet yàlla def na yonent bi waxal sa xeet bi ne leen du ñu gudd fan cent ans rek la ñuy am mais bi ko yonent bi waxee gars yi dañ ne cent ans day jaruloo utub néeg ci biti lañ toog ba cent yi jeex ñu dee ñu ne cent ans wax dëgg yàlla jarul ut sax mbaar ñun nag quarante sax doo ko am nga tabax bil diin affaire ngay am de nañ seetlu yëf yi alal ji moom yi rek yàllaa na ko jox pour àllaaxira soo góorgóorloo envoyé ko balaa ngaa dem fekk ko fa nanguwul nag nga yóbbuwaale envoyé avant départ soo nasaxee nag di ko sakkantal bàyyi ko fi dem yooyu ñaar rek envoyé ko ba bàyyi ko fi du noonu te ñaar yëf rekk am jànq yi armoire yi ak armeel yi armoire yi ak armeel yi ku jàpp sa armoire feesal ko dell ko or palmaan cawal garam mbubb wasi sa bàmmeel mu ni kukk daa xëy bés ñu taxañ la nga bàyyi fi armawaal bi ak ñeneen ñu gàjjaaje ko nga dugg ci néeg ñu ñuul kukk te dootoo ko génn bay laayu ma xam nga lu yàlla wax na du daf ko ne li nga ñaan duma la ko may li ngay am am dara ji ah da nga bëgg bu may defanteeg sa gars yi yow rek koy fekk kenn du ko fekk yonent bi ne ko waaw mu ne ko amul loolu doo ko am xam nga ne may def bu may defanteek ñoom man rek ko koy fekke yow sax doo ko fekke yow sax Mohamed doo fekk sax bu may defanteeg sa gaay lu ñu ñaawlee dinaa ko nëbb lu ñu rafet la ma duubal ko lu ñu ma tooñ ma baal leen ko boo ñaa leen sama ngën gi